mën a am fiche bay wuti parrainage ngir mën a bokk ci élection yi candidat wu benn bokk yaakaar ci boobale élection di Amadou Ba docteur Souleymane Assou Diagne nee na waxuma la gagné rek waaye ca premier tour ba lay jël raw gàddu gi réew mi quotidien mel ni ku naan ñu amadu Ba tàmbale naa liggéey ca loola del see nii ci ndaje même sékkoon ak ndaw ya ca Parcelles Assainies mbooloo mu bari réew mi quotidien nee na moo fa teewoon le Échos gannaaw ba mu dëggalee mbooloo mu takku moomu teewoon Parcelles Assainies te ñu ci ëppoon di ay ndaw nee na Amadou Ba bay sa weewu tànk la def parcelle ga mu dëkk boole ngir xuus jëm ci biir Sénégal Sénégal googa Abdoul Mbaye ne ci bomb la toog te bu nu wul léegi mu kalaate candidat bi ci élection présidentielle bi nu dëkkmal waxtaan wu yaatu la sëkk ak yoor yoor bi bawu ca dara nag toll tolluwaay réew mi ci wàllu démocratie rawati nag ni ñuy tëjee ñi ci opposition beeg société civile bi yéy na ci yàbbi loola it Aly nguy Ndiaye ma nga cey ya yàbbi ci biir la tribune naan réew mi ci boppam moo bari naqar injustice ak xàjjaloo ci Sud Quotidien Aly Ngouille Ndiaye ma nga naan Sénégal xel xalaatul muy wéy di wéeru ci bitim réew ngir dundal chômage bi mu ne dafa yokk ba la tolloon atum 2012 waaye ci 2022 yegg na ci téeméer boo jël ñaar fukk ak ñett waaye li war a dakk ci nim gën a gaawee Aly Ngouille Ndiaye nee na mooy ni ñuy caxat-caxatee alalu réew mi nguur itam warta def rek cim réew képp ku samp ndëndam ci wàll politique gi soo wujju nga dal ci kawam moom Aly Ngouille Ndiaye mi ne it mooy candidat wu jigéen ñi ci Le Quotidien ma nga naan élection bi nu dëgmal moom kenn mënu koo gàñe ci premier tour gaaruwaale ga mu def Amadou Ba nag moom la bés bi xëy yeggee ñu candidat wu Aly Ngouille rek ci booba la yéenekaay ma nga naan Amadou Ba xamante nañu fii du décret waaye élection la élection booba nag ca la Thierno Alassane Sall mi ci bëgg a doon candidat yit di artu ci yéenekaay bi di artu gum jëmale ci conseil constitutionnel sàkku ca ñu lànk ku leen influencé ba tax ñu am nun doxalee ci élection bi nu warut Thierno Alassane Sall jàpp na itam ne moom rupture coppite gu mat sëkk moom la Sénégal war a am Sénégal mooma di xaar gouvernement bu bees enquête la nag lanu yéenekaay bi di yëgal bokk na ci ay jëwriñ yu mag a mag yu war a jóg fantoog ci xët gu njëkk la tribune booba jamono ñu gis Bougane toog ak du Ba jëwriñ ju njëkk ji da koo jaale ji woon gannaaw bi soxnaam si di moom moomi sekk dani génnee àdduna la tribune nenu Bougane ca moomale ndaje nag la sàkkoo ñu xeex cancer ndax nee na juróom-ñeenti at a ngi nii soxnaam soosa doon xeex ak woowale jàngoro waral mu sàkk ci nguur gi mu fexe wàññi ñiy faatu ngir cancer ndax Bougane nee na du jumtukaay yi ak mën-mën gee ñàkk ñàkk gim ñàkk soxnaam it yéene kaay bi ne tax na président Macky Sall la yëkkati téléphone am woo ko moom bugaan jaale ko l'observateur booba jamono dinu yeggee weneen tiis nenu ca derkele keneen faatooti na fa ci explosion gaz ba fa amoon yéene kaay bi ne kii mooy juróom ñetteelu nit bu ñàkk bakkanam ca boobale jéya jéya dëgg kay libération mi ngi mel ni ku naan ñu mooy li Moustapha Seck def nekkoon faru fi coor gone gu jigéen ga nu xoj ca mbuur mu sedd guy libération nenu ca néegam la ko faatee lataa mu ko diri yóbbu ca biti ngir ñu foog ne agression la li waral musiba mbàbba kumba gi nag yéene bi ne mooy gone gu jigéen gi daa lëkkaloon bëggoon mu yàq biir ba mu lànk l'observateur dëggal ko ba nuppi yeggee ñu kàddu yi Moustapha Seck yëm yëkkati ca kanam enquêteur ya lataa munoo yeggee moom yéenekaay bi kàddu yi Bill Gates yëkkati jëm ci ndaje mu yaatu mi mu fi bëgg a amal bëgg-bëggam ci wàllu wér-gu-yaram programme bi mu am ngir Afrique ak yéeneem ci Sénégal itam ma nga koy wax ci Vox Populi muy wax li waral mu tànn senegal ngir mu daral kuréelam googa ndax moom Bill Gates nee na ci at mi nu dëkmal fondation wam dana ubbi ay bureau fii ci Ndakaaru tolloog junni nit ñàkkagum nañ ci seen bakkan juróom benn téeméer ya ay doomi Israël lañu ñetti téeméer ya ak juróom-ñaar fukk waa Palestine lañu yéene kaay bi ne ñeenti junni itam amee nañ cay gaañu-gaañu fitna googa nag vox populi ne jaaxal na lool Sénégal jàqare it ku wul benn bokk yaakaar dana ko amee ci socialist yu tëngeej vox populi ne seen yoonu bopp lañu jël Karim Mbeng ak ñam àndal lànk na noo pare ne candidat benn bokk yaakaar bi di Amadou Ba te moo ne de les échos nee na Macky Sall joyanti na sax nam tabbee coordonnateur régional parrainage ngir benn bokk yaakaar socialiste ŋàññee Mame Bounama Sall yéeni kaay bi ne moom la nu mujjee tabb mu jiite Thiès gënu dénkoon Augustin Tine Mori Diaw moom yéeni kaay bi di réew mi quotidien nee na pétard moo ko dal ban évacué ca civière ca Montpellier Olympique de Marseille booba jamono tàmbalee ximmaliku gannaaw ndam lim am ci kaw Havre te bitub Ismaïla Sarr may ko ko zos moom booba jamono may aada Fass mu mën a janook guy gi la tribune nenu si ay simili yu la gonek Fass gi